di leen ndokkeel ci jotaay bu am solo bii nga xam ne ci la nekk di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mboolem liñ ci seenu ci aw yiw <clears throat> ba tax ki ko sabablu sabablu ko ñun ñi ko wuusi it bàyyi suñ lépp si ko yàlla nañ ko yàlla defal bi barakat Cheikh al Xadim radiyallahu anhu di nuyu ñu fi nekk ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ku nekk ñu ñu la jox sa gëdd ak sa dayoo bi la suñu boroom jox Euh, jataay bi jataay bu am solo la boo xam ne mbokk mi ko sàkku muy sëriñ Dame Touré lu baax rek la ci jublu mm, yàgg koo waxtaane lool yàgg koo waaj mm, ëpp na at bi mu ko dalee xalaat ak léegi donte wéradi gi fi jaaroon taxoon na ko gàllankoor ñu ko ñaanal borom bi lépp lum mu ci yittewoo yàlla na ko yàlla defal di sant ñëw yëpp ndax wax dëgg yàlla du ak jote fi indi nit du leneen fi indi nit lu dul rek liñ ñu woo moo ñu yitteel ñun ñëpp ñu ñu ñëw mu ne woon na xam naa jataay bi ngir dundal ko ñu jéem fee amal ay kàddu yoo xam ne danañ ko mën a fàttalante ci Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne bu islaam deb tool mu su mooy suñu jëwriñ moo ñuy dooñ moo ñuy sas moo ñuy xëyloo moo ñuy wàcciloo ca fim ñu féete dañu sëkk wales ñuy xool leneen wala ñuy xool keneen lislaam dañoo ñëw fekk ko fi ñu ne ñu téere bii alxuraan la am na ko fi jaaroon di ab yonent muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko wàcce woon ci moom ñu gëm ko fekke wuñ ko ca diine jooju di diine joo xam ne boo bëggee mucc àdduna ak àllaaxira ci ngay nekk boo ci nekkee mucc àdduna ak àllaaxira boo ci nekkul doo mucc àdduna doo mucc àllaaxira ndax dunduk àdduna ci boppam génneru lu neex maa ngi chatan danka la yàlla wax dund wa man arada an fa inna lahu maa ngi chatan danka dund naqare lay dund bari waa na koo jàpp ne neex na fekk neexul alaa bi dikrillaahi ma innul xulub idmi inaan al qalbi mooy xol bu dal xel mu sell ci lislaam rek ko mën a amee diina jooju di tax a mucc nag di tax a ñoŋ di tax a aljana di tax lépp di tax a baax di taxa lépp ñun liñ ci xam lépp ci sëriñ Tuubaa lañ ko xamee radiyallaahu moo ñu ko xamal ci moom lañu ko jànge li mu ko jaraloon it gisuñu kum ko jaral ba fii ñu toog dundam gépp dara neexu ci lépp ay métit la lépp ay nattu la darage taxul woon alal taxut woon aw tur taxul woon ab cër taxul woon bu jëm ci àdduna lépp dara waralu ko woon rek lu may lislaam na tasaaroo na ñoŋ na ko nit ñi dund la leen naroon dal ci ay fitnaak dox seen digganteeg moom ma gàddul leen ko kooku nag fépp fu ñu dajee ñun ñii ay taalibeem ne dañ ci waxtaan ci moom lu jaadu la lu yàlla la damay faral di wax ne gën jaa néew gën jaa néew war na am ay bis yu nekk waajur wu ne jagleel ko ay waxtu ci këram waajur wu ne murid bu ne jagleel ko ay waxtu ci këram ci misaal samedi ji nga xam ne ci lañu nekk dimanche ñu bari ci ñun du liggéey ñu bari ci ñenn ñi duñ liggéey yow mi du liggéey dimanche war ngaa jël boog waxtu wala ñaari waxtu say soxna say doom ñëpp fay seeni téléphone dagg ci saal bi nga jël benn une heure de temps wala deux heures de temps boo xam ne da nga leen waxtaan Serigne Touba mboolem ndaw ñi li leen li ñu li ñu naqare ci ci ndaw ñu bari mooy sëñ bi dañ koy dégg waaye xamuñu ko waxuñ leen ko nag télé yi ñuy xool duñ ko ci gis ñi ñuy jaxasool di ay mag duñ leen ko wax li ëpp ci jataay yi ñu tudde jataay yi diine it léeg-léeg mu dem ba jàll duñ ko wax sëñ bi duñ ko tudd duñ ko waxtaane kooku nag boobaa ñooy tooñ ndaw ñi li ñu war a rapproché ndaw ñi la Seydina Omar waxoon waajur waajur wa ba mu ñëwee ne jàmbat doomam ci yu baree bari yu ko naqari ci doom ji doom ji ne yaa amiral mu'minin ndax doom amul àq ci waajuram la ko àq ah, kay mu ne ko lan mooy ay àqam mu ne ko la ci jëkk mooy na ko tànnal ndey mu ne ko sama waajur tànnalu ma ndey ju baax ndax ku kàccoore ku nekkoon ci dëkk bi rek moom la jël sëyeeg moom ba ma ba mu juddoo ci mu ne ko ñaareel ba ne ko na ko tudde tur rafet mu ne ko sama waajur tuddewuma turu rafet turu turu abdourahman a ngi fi abdoullah ngi fi turu yi fi nekk bari na lool mu tudd ma alqunfasa muy gunóorum mbérengaan kon ñaawal na sama tur lool mu ne ko ñetteel bi mooy ne ko jàngal téere bi yàlla bi mu ne ko alquran xamu ci dara mu ne gees waajur ne kon bala ngaa wax sa doom dara àq jum la yoreel lijjantil àq joo ko yoreel kon ñun bari waan lu ñu teg lu ñu naqari ci ci ndaw ñi bari waan lu naqari kilifa yenn yi ci nit ñi mooy liñ leen war a jàngal lañ la Sëriñ Tuubaa kenn du ko jàngal nit mu xam ko di di xalaat leneen waxuma la di jëm feneen loolu moo am guu bi mu saf tem-tem bi mu am kenn du ko xam di xool leneen loolu moom loolu lay loolu yàlla def ku ko ump umpale gi nag ci ndaw ñi ba ñuy won leen leneen ba ñu jëm faneen boobaa bala ngaa dal ndaw yi yow mi sàggane woon sa sa sa njaboot ba ñu jëm faneen yaa responsable bu njëkk bi ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax kon lii lu jotaay bu ama am solo la ñoo ngi jégalu ci xaw gi guddul ci ubbite gi dañ doon wax rek ci ngir solos solos jotaay bu mel nii ca lu mel nii ku ne war koo roy ci ni ma ko waxee di ko def sa kër bul xeeb bul xeeb ka nga dendal Serigne Touba nee na woon ñaari taalibe ñaari ñu daje ñu nekk seen diggante yéefar dox asalaam ñeenti baat lañu ñu war a seq asalaamaaleykum waaleykum salaam mbaa jàmm rek nga am jàmm rek la am nee bu ñu waxantee ñeenti baat yi katane morom ma ca borom ma na ca dem moom lu ñu def lu loolu sànq dund la boobaa kon koo ci xam ne mën na laa yeel sa sa sa njaboot bul bul bul semaine bu ne dafa jege déedéet boo ko mën nga ko def weer ne waaye lu mat di bàyyi xel daal jataay bii di am di di di di di ñu di ko roy di ko tasaare ndax lu bare bari ñu xam ko ci ci ndaw ñi damay faral di wax ne ndaw ñu bari naw nañ ay ñii ay footballeur lañ naw ñii ay musicien lañ naw ñii ay fecc kenn lañ naw ñii am acteur film lañ naw ndax loo ñooñu lañ gis ñooñu lañ ñooñu lañ xam Sëñ Tuubaa aw tur lañ lañ xam ak ak photo hmm? léegi des mooy ñenn ñi dañuy dañuy xër ñàkk xam nga daleen ci yóbbee lu nekk am nga dem ba nit nekk ci diggu terrain di saabu dugalee jàpp na daa war a wone forom sëriñ Tuubaa xamaluñ ko ko kooku daa am ak bëgg xër xamaluñ ko ko ba àgg ci ñenn ci tubaab yi di wax naan dañoo yaakaar ne sax kii ñuy wane fotom nanga ndax da doon liggéeye lii mooy kon nañu dañ delloo siwaat ci xam ne jotaay yi daal lu am solo la ñi ngi fi nag incha allah taala ak sëriñ Bassirou Gueye moom moo ñu ubbil ci xasida ñu daal dugg ci tomb bu waxtaanee euh, Cheikhul Khadim radiyallahu ak alquran ak sëriñ Tuubaa ak ak sunna ak sëriñ tubaa ak tawxid i sëriñ Saalihu Sàmb dañ ko jox mu am 10 minutes ci tomb bu njëkk bi jox sëñ Ceddo Murit mu am 10 minutes ñu del siwaat tombum ñaar bi defaat ko noonu bu ñu noppee nag ay boroomi xam-xame nga fi sëñ Mame si Sile ñoo ngi sëñ Mame Balla Touré du ma lim xëy na jublu sëñ Moustapha Gueye ñoom ñëpp ay ay ay kilifa rek ñoo fi ne ñoo xam ne ñëpp mën nañoo mën nañoo waxtaane lu gën a rafet lu gën a xam-xame lu gën a jaar yoon ñun ñi fi toog ñi fi toog li ñuy waxtaane day tolloo rek euh, bu ñëpp doon wax kenn du jariñu faaw ñu ne ñenn wax ñeneen ñeneen déglu waaye balaa thème bi nag am na lu ñu fi tàmbali woon liggéey muy xam Bamba jot na loolu di xalaat boo xam Sëñ Dame Touré moo ko moo amoon woo woon ci mbokk yëpp ñu ñu dagee ci di ci liggéey ak moom muy lu am solo loo xam ne rek wax dëgg yàlla moom it togg nañ ko lu lu mat at wala jege ñaari at waaye mbas mi fi jaaroon rek moo ko moo xawoon a gàllankoor waaye jéego yiñ ci jaar ba agsi fii ñu fii agsi incha allah taala euh, président danañ ko jox donte am njëbeen na xam naa bu réeragut moom euh, xam naa ne euh, dana xaw a doy waar ci moom waaye incha allah moo ñu koy résimel nag moom li nga xam ne moom mooy xam bamba jot na ci ak tënk ba ñi nga xam ne ñoom xamuñ woon loolu ñu xam ko ñi ko xamoon ñu ñun ñi ko doon ci doon yëngu it ñu fàttali ko incha allah ñu xam ne liggéey bu am solo la waaye ngir bañ a guddal loolu dañuy jox sëriñ Mahamadul Bachir Gueye mu ubbil ñu jataay bi ci xasida incha allah bisimilah. Euh, xam naa dañuy jéem a tënk lii ñu doon wax jox ñi nga xam ne dañoo bëri bëgg commentaire ndax mel na ne ñi ngi wax ne buñ doyloo woon lii ñu wax dana baax euh, ba ñu dugaat ci tomb yi ci des ndax euh, xëy na am na ñu am ngànt ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ba ñu guddee lool. tom biñ wax liñ jot a waxtaanee di lu am solo muy Serigne Touba ak alxuraanul karim ñu mën cee tënk ci liñ doon jëlee ci waxtaan wi li ci jëkk muy wax nañ fi sëriñ bi fi mu fekkoon téere bi fi mu fekkoon alxuraan fekkoon na alxuraan ñu di ko mokkal réew mi fekkoon na sëriñ bi ñu di ko mokkal ay waajuram ay jàngalekat lañu woon ay maamam ay jàngalekat lañu woon damay faral di wax ne lu bari ci li nga xam ne moo tax sunu xam sëñ bi di des bokk na ci mooy li li ñuy yem ci moom buñ ko romboon ba xam njàmbaaru ñi fi ne woon ba tax bi mu ñëwee wane na lu gën lii mën naa am ñu jàpp ne dafa nitewul du xeeb ko du doyadal ko waaye dañoo jàppoon ne fi ñuy àgg ci mbaax lu ko gën munta nekk gën nekk moom mu waroon ne lu ko gën mën naa nekk da wax ne ñooñut kenn gënul leen ndax bi mu leen wanee lu ko gën nangu nañ koo topp di ay wajur di ay nijaay di ay mag di ñëpp loolu kon kenn gënu leen kon fekkoon na fi ñuy mokkal alxuraan fekkoon na fi mokkalin yu yéeme ba àggoon ci ñenn ñi dañ daan def ay ay daje di di juutal alxuraan maanaam juutal juutal tàmbalee ci catul saar kon nga ne amin wala daal na alim maxdur bi xëy jëm kaw am am na ñoo xam ne foofu lañ àggoon ci daan ko def ay di def ay daje di jongante ci loolu daan wax baat jëlal naa baat ba ma wax ma wax la ba ci tege wala aay ba ma wax ma wax la ba ci tege waaye aay ba ma wax ma ko jiitu daan nañ ci def ay ay jataay waaye ànd ak loolu lépp nag li sëñ bi doon juñu sànq bari na ñoo xam ne alxuraan bi ko nit ñi joxee gëdd ak wàccuwaay bi ñu ko jox dañ koo def jumtukaay wut alal ba fépp fu ay nit di daje jombale fa téere bi ak jataay ba bu mu mën a doon ak la mu laaj ndax bariwaana du ñëpp waaye bariwaana sëriñ daar yoo xam ne amoon nañ caayay band am caayay kasak am caayay taaxuraan am caayay laawaan ca caayay juñ ci sol lu mu laaj ñu jox ko lu jotaay ba laaj ñu jox ko ngir wut ci alxuraan menn misaal lañ ci jo jël mooy lu mel ni laawaan laawaan kàngu alxuraan bi ni ko daan defee mooy day jóge ci aw fa mu nekk ñëw ci aw tund bu ñëwee ci tund wi ñu annoncé ne kàng sàngam ñëw na ci tund wi dëkk sàngam la dal dana def bisub laawaanam bi sàngam ci waxtu sàngam ca pénc dëkk sàngam ñii daal di tàmbali di jug di takk sareet ñii wari fas ñii wari lañ mën am ñii di dox bu ñëwee ca yoor yoor gañ ko daan def wala ngont mañ ko daan def ñëpp daje caayay laawaan dañu wax ne moom caayal yoo xam ne daan daan buubu ñu tey topp ci gannaaw laawaankat bi ŋàbb cat li téye cat li ndax rëy gum rëy waaye saa bu ko soxlaa nag ba jaayu ñu bàyyee ko caayam mu wëndelu ak moom mbaxanam laar mbaxanam yi dañaa daan romb digg gannaaw gi mbaxanam yi loolu it buy waccaxu ci bopp bi la ko daan soxla laawaankat bi nag bu ñëwee ci penc mi ba dajee ñëpp dajee muy tari alxuraan bu demee ba yaramam tàng day bàkku man diw doomi diw ak diw dëkk barab sangam dàq alxuraan ci tund ku ma ñemee ne ma na ñëw ñu jamoo léeg mu def ko menn kaang ne lay dugg ci biir géew ba ñu jamoo ñoom ñaar jamoo ba seen xol sedd kooko génn bàyyi ko laawaanam bu ñu àggee it ci diggante boo xam ne jàpp na rythme bi mu am mais sa koo tëggal mu fecc day tëgg mu fecc wa saafaati safa wa daariyaati darwa wal aadiyaati dabuha wa najmi ida hawa rythme yooyu kaang mi daan laawaan da koy fecc bu fa accès bu defee ci toor yi toor yi tor yi bu ci masaan agsi it muy boole yi noonu la ko daan defe kon loolu la fi fekkoon foofu dañ fi indi benn parenthèse bu ndaw mooy sëriñ bi dawul nangu ku leen wax dara sëñ bi danañ wax ne bu leen kenn wax dara ndax ñoo fekk ñoo tax ma fekk fi téere bi ma mën cee liggéey lii ma ci liggéey seen mbir ni mu demee mi ngi mel ne fasu naaru góor wurëc ci borom daw ba ci ay mbëri làmb yu am kàttan ñu karkarloo ko jàpp fas wa yeew ko delluwaat ci seenum po xamuñ ne fas wi daa war a lekk pepp xamuñu daa war a lekk cox xamuñu daa war a lekk ripaas xamuñu daa war a lekk ngooñ ñu bàyyi ko nee na booy topp fas wi ba ñu fekk fas wi yooyu bul jàmbat yooyaayu fas wi ndax buñ ko téewu doon doo ko fekk nee na kon man ñoo ma ko téel ba ma mën cee liggéey li ma ci liggéey laawankat bi bu ma saan jógee lu ne la ci daan am da ci daan am dugub da ci daan am ñebbe di ci am gerte di ci am ak ak jur di ci am ay ginaar lépp lañ ko daan jox bu ma saan laawaani ba ñëw dañ koy sëfal indi tubarkalla bi Cheikh Khadim radiyallahu anhu ñëwee nag dafa tëral stratégie pour jëlee fi loolu jëlee fi loolu ci tënk bu gàtt dafa def moom ku ko bind kaamil alxuraan jox ko mu jox loo xam ne laawaankat bi mën naa laawaan ay yoon ca du ko am laawaankat bi mën naa laawaan ay yoon ca du ko am lu sëñ Bachir doon wax léegi Saalum di bind du ko yut mbaakal di bind du ko yut gànnaar di bind du ko yut muy jënd ay mool di ca rax noonu ko waxe boo féete woo di ko bindal mu féete woo du la dundal boo koy bàyyil di ko bindal mu sàkk ñuy bay di la jox waaw warlu la nag canuk jigéen labat ko yulle doo ko miin mu gàddu say mbir nga ne tuun mbaa nga ne gummunam bi tax sëñ Musaa Ka tekki ne bu ma yëgoon bindi mo saaf bu ma yëgoon jëndi mo saaf bu ma yëgoon diju ba xëf bu ma yëgoon matu la wax kon dafa am lu mu jaroon kaamil boobu nag boo ko masaan indi dañ dañoo baaxoo woon booy boo jeexal kaamil bi da daan man diw doomi diw ak diw maa bind kaamil bi dëkk ci barab sangam tagg sa bopp ak say maam sëriñ bi daal ne lii dañ koy xeet alxuraan ni nga xamee ne jërto wàññi dara jërto dolli dara fi mu yem minal jinnati wan naas ji bu ko ci dolli bu ci dolli la mu ngi nag ñuy waxtaane sëñ bi cey doomi ahmadu cey doomi mamadou sa ant sali cey ahmadu bamba cey ahmadu mbàkke réew mépp di ko waxtaane kaa ngi nag di daw di bind kaamil di ko di ko yut hmm? ni ko sëñ Musaa Ka waxe noonu la ko naaru gaanaar ba waxe woon dana woon maa in ubaali ida ma danna du maali anni bu ujrati xatti l mushafi l aali maadaama xawtul wara hayyan yubajjiluhu xaq fihi hayyan yubajjiluhu xaqan wa yubdilu fihi xaaliya l maali dane ku yorat sa alal di nay yaa xam téye leen seen alal yi man am naa compte banque boo xam ne saa bu ma jaaxlee falaay dem yóbbu sama chèque mu retiré mooy fan mooy fii ak Serigne Touba def nii alxuraan dootu ma jaaxle ndax fu ma jaaxlee bindub alkaamil yut ko mu defal li ma defal di misaal kër sëriñ bi ni muy mel naan fii kulli yawmin tuwaafil alf manzilahu tutlaa bi amsaalihaa min baat amsaali bu sa da nga gis kër sëriñ bi mel ni ay njooxee mbooloo ne fa ay junni junni rang wuti ko nee na di dolli ko wuti ko nga ne ko xanaa kon sëñ bi dana xam dana dem ba caag mu sonn wala mu toqi wala mu tàyyi mu de wallahi ma zaadahu illa biha fariha wa baslu ma lam tanalhu kaffu baddaali nee wallahi luñ rang ci kawam luñ xat ci kawam fii ñu ngi du yokkat du sonn day da ngay gis mbégte moo xam ne mbégte mu réy réy ak di joxe alal joo xam ne mosuñ ko àgg ah, eh. mu ne ba ci mu ne kon tey tey leen kaamil ba suba mu ne déedéet saa buy téyeb kaamil ka annama axiru l maquudi awaluhu mimma yulaaqihi min hubbin wa ijlaali sëñ Tuubaa ne bu kaamil kamil ba mujj nangu bu koy bu koy nangu da nga yaakaar ne keroog la ma sa gis ab kamil yaakaar ne keroog la ma sa ab kamil mu daal di misaal si lu baree bare baree bare baree bëri ci kon fii la sëñ bi fekkoon alxuraan waaye lii ci liggéey damay wax ne lépp lu tax sa alxuraan sax fi sëñ bi da cee liggéey alxuraan lépp luy dëggal ballixu an ak ballix maa unsila ilayka sëriñ bi da koy liggéey liggéey yu bu dee jàng ko mooy tax alxuraan sax fi cheikhul xadim radiallahu anhu dañ ne fépp fu mu foo masaan bëgg a xamee sëñ bi fu mu nekk neel teg déglu foo dégg dën dënn bay riir sëñ bi daana daana bind xasida di tari alquran di da ko koy wax léeg-léeg mu jaaxal am na mbokk mu ñuy wax taalaga jeg na yéen xam waa Njaaréem taalaga jeg daana bind euh, euh, jazbul xulub di tari mawaahibu naafi wala muy tari mawaahibu naafi xam nga ko bind na ful ko tàyyi di tari euh, muqaddimaatu am daax loolu kon sëñ bi daana ko def nga xam ne alquran doon léppam moo doon wéttal moo doon léppam bu dee bind ko mooy tax mu sax fi ci loxol boppam radiyallahu anhu bind na ko ba tey bind na ba tay am na bu kaamil boo xam ne moo ko nettali boppam suñu bàññi neen dañoo toog njaariñ ba ci yàgg genn góor gu màggat ñu tëll ñëw di xat-xatloo ngir bëgg gis sëñ bi sëñ bi ne ko man ngaa yem foofu ci xam ne fàttewu ma yëkk wa góor gi ne groupe ci suuf ne ko loolu de kii man la mu ne damaa bëgg ngeen xam li dox sama digganteeg góor gii dama leen ba ngeen xam ne ñett maa ci man ku dul man mooy néewu fàtte sàmm wëllëre bañ ku ma ñax daane sama digganteeg góor gii damaa bindoon ab kaamil jox ko sëriñ Moor muy waajuram sëriñ Maamoor xool kaamil ba noppi ne ko ah kaamil bi de tubaarkàlla jaar na yoon loolu de waaye kër gi dara defee néewut ma bëggoon buñ ko mënee wecc ko lu dem ci kër gi sëriñ bi neen maa jëlal sama bopp kaamil bi dem ci góor gu doon jaay jënd ay kaamil ci Saalum ma dem jox ko kaamil bi goor gi ne ma man de mën naa ci li ma ci man de xam naa dana jaaxal tut tànk dana jaaxal dongob daa rawat na tut tànk mel ne yow mu ne loo ci man mu ne ko sax sama xàbbanu gétt gii de mën naa la koo jox ci kaamil bi nee na ma xaw a jaaxle góor gii agsi boobu mi ngi toll ci digg dooleem daal di ne groupe sama kanam daal ne ma bu leen nare loolu naree tax a xàccoo baye boo nga jël ko ma yóbbul la ko nee na ñu na góor gi daal ne bërit wan ma ginnaaw ba jàgg mu del siwaat sama kanam sukk ne ma damaa bëgg kayit bi may yóbbu li wax nag musnad bu gàtt la sëriñ Modou Rachid Ndiaye moo ko nettali sëriñ ma bàññi xujja balla sëriñ Touba musnad bi di rek la lu gàtt la nee na sëriñ bi daal ne góor gi nag ba mu ne ba mu sukkaat sama kanam dama nag damaa bëgg nga warlu ma ci ñett gudd fan lool am barke lool day dem aljanna nee na kon xam ngeen ne góor gii ba moo ne ginnaaw ma jubóog moom ci loolu ne ne xamagul booba kuma loolu sëñ bi tax booba sax taxul xamagul kuma waaw xamagul kuma waaw loolu la wax xamagul kuma waaw waaye yàlla defal ko tawfiq nee na moon ma ginnaaw jóge Saalum ñëw Mbàkke Bawol yeew nag bi nee na ba mu nee bërit woon ma ginnaaw laa ko mujj a gis mu ñëw yeew nag wi ma jëm si Mbàkke ñu joowaat gisante waatuñ boobu ba léegi tey jii laa ko gisaat xanaa kon bu ma gisee xàmmee ko war ngeen xam ne néew naak fàtte lool benn mu ne ñaareel bi mooy dama fonk wëlëri fonk wëlëri moo tax ma jox ko cër bii ma ko jox di waxtaan ak ay mbiram ñëpp taw ñetteel bi mooy bañ ku ma ñax damaa bañ ku ne ma diggee woon nañ nangam ca lang ma diggoon defoo ko moo tax la ma diggee woon ak yow fii daa la koy laajee nu mu demee mu ne ko man kay gis nga ma nii màggat lool bari barke lool benn rek a ci des mu ñaar yi na nga gisee wa ca des kon sëñ bi moom daana bind kaamil ci loxol bu tedd ba radiyallahu anhu gis naa tafsiru uh, aljalalayn boo xam ne moo ko bind ba sulul kaaf ci loxol bu tedd ba radiyallahu anhu bu dee jàngalu ko mooy tax bu dee jàngalu ko mooy tax sëñ bi wax na ka daari da ko da ko kaa fedd li waaye gannaar la ko sose woon gannaar daan wax ne ku mukkul alxuraan moo fekk gannaar daan wax ne ku mukkul alxuraan mag mu ne la dem na gannaar rek mokkul alxuraan moo fekk kon bu dee bu dee bu dee jàngalu ko mu sax fi ca gànnaar ja ba fii ñu toog di wax ak yéen ba fii ñu toog di wax ak yéen 1904 ba fii ñu toog di wax ak yéen bus bu set julli gu dem dana am kaamil bu ko gunge du genn julli farata bus bu set laa wax ba fii ñu toog ma nga njaareem ma nga tuubaa ma nga ci penc sëriñ tuubaa yu bari loolu yonent bi sax moo wax ci hadis ne yàlla dana hadisul qudsi sama boromam subhanahu wa taala moo wax ci hadisul qudsi ne yàlla dana me sëpp sëpp sëpp adduna bi gis mooy yàlla yi bari lool mu mer ba nar a tàppe asamaan seeg suuf gis tu tànk yuy jàng alxuraanul karim murusa leen ko waaye waaye ase kon ñoo xam ne waxtu wu ñu gungee ko ab kaamil ci barab wet bari waa nag koy bajantu la la garanti xamu ko loolu moo ci nekk kon bu dee jàngalu ko moo tax mu sax fi ñii ko sëñ bi waxee am na ñoo xam ne seen seen seen dogi bopp lañ yor am na ñoo xam ne naafi leen ko saxe woon am na mag mu baax moo xam ne sëñ ko looyu naafilaa guddi mu ne ko ñaari isib ak nisif ñaari isib ak nisif mooy li ñuy naafilaa koor ñaari isib ak nisif mooy li ñuy naafilaa koor sëriñ Tuubaa ko accam loolu naafila ak jigéen la kilifa la woon sëriñ Tuubaa ne ko accam loolu naafila ak jigéen la waxuma la weer koor de lu dul weeru koor lay naafilaa ñaari isib ko accam loolu naafila ak jigéen la ku ne xam ne sëriñ Daam Abdourahmane Lo kamil bu ko xaaj ñaaraakaa ñi nangam kon loolu gis nañ bu dee bu dee jàngalu ko bu dee bindi lu ko nam ko doon binde bu dee bind lu ko moo tax mu sax fi mag ñi dañ daan sasoo ay kaamil ñi ñii xaajoo ko ci kii xaaju kaw bi kii xaaju suuf bi léeg-léeg def ko ñeenti xaaj léeg-léeg ku nekk sasoo ab kaamil sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana neen dafa am bés sëriñ bi génn ñaar fan ak ci weeru baraxlu xam ngeen kayit yi lu ma ci namm maa ngi seen pësee fi ne ko fas ko yéene mbàkke maanaam loo ci mën a namm rek fas nañ ko yéene nga ne même leen ko joxoon ne dem leen xooji ko ci géej géej ñu tëb bu leen ko joxoon ne leen dem leen xooji ko ca géej ga ñu fex ak li mu sori sori wallaay loolu ñu ne ko fas ko yéene rek lu ma ci naam ñu ne ko fas ko yéene mu ne mu ne tey la ñaata fan ci weeru weeru baraxlu mu ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu dañ leen tey la ñaata fan ci weeru ñu ne ko tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu mu ne damaa bëgg ne bu ñu nee taafeere weeru koor ngeen jox ma sama kaamil sami lu mu jow daga nee na ñu séddoo kaamil ku ne fii laa tàmbalee fii laa yem ñu wonante ginnaaw dem nee na ba ñuy indi kaamil bi la ci gën a yéeme mooy kaamil amul paas bu widd verge amu ci place boo xam ne dafa weex tàll amu ci ku nekk fa nga joxoñ da ngaa dëppalee sa morom nee na kër ba mu téyee dana yàlla xam ngeen ne sama borom moom moom loo téere bi def na lu gën a yéeme loolu benn bis taxaw na ne famille laa bëgg askan laa bëgg woo xam ne dañoo mokkal alxuraan ñeen fukki góor yu bokk wenn askan bindal ma jant tooy ab kaamil waa maa bi ni'mati rabbika fa haddis ma fëri njaay mi jur cheikh ni ni sama baay ci kaamil boobu la bokkoon lu ku nekk la nga tiitarul sëñ Tuubaa waaw ci askan woo la ko fekk ba léegi ñeen fukki yëpp mi ngi ak man mi ngi ak ñu bari sax ci ci ci famille bi ba fii ñu toog di wax di wax yéen ren képp liñ ci jàngagun ci kaamil li liñ dagaleegun fi ne di ko màggale kaamil booba mën na fukki junni kaamil ak benn si famille bi liñ ci liñ ci jàngagun fi ne liñ ci dagaleegun fi ne xam ko ndax loolu lañ ci loolu lañ ci cër cëroo benn bis lañu la ñu defar daaj yi ci la sot xalima yi ci la ñuy bind kaamil yi ak couleur yam war a am yëpp ci la ñu defar jaafara ji ci la ñu def lépp tey bu ñu ko soxla woon ci kër sëñ Tuubaa gune mën na ko tey bu ñu ko soxla bi def na ko benn bis kere bañ koy def sëñ euh, Habibou Diop di doomi sëñ Amdi Diop ma nga ca liba maanaam ku ji woon naan bi mu ñëwee amman la jógee dane dane dane dane dafa gis xale bi muy bind ñu ne ko kii ab muuma la ab muuma la mu ne kon dafa dañ koo dicté li muy bind wala loolu ñu ne ko fu la neex ja bind la ko mu daal di koy won kayit bi nëbb ko xale bi bind paas bi kon loolu ba léegi kon bu dee la koy bind lu nga xam ne mooy tax mu sax fi ca nag alxuraan nañ xam ne lan moo tax ñu naan raxas ñu buñ ne ah eh, biñ bind moo am wet gu mag wet gu ndaw raxas loolu moo amoon ci mag ñi bind mooy bind bu tooy wet gu mag mooy wet gi nga xam ne bind nañ ko ba mu fees wet gu ndaw mooy gi nga toll boo raxasee nag amatoo foo koy xoolee da koy tari force loolu amoon de amun woon fuñ ko jukkee loolu waraloon ku ku jóge ci daara bala nga faa jógee da ngay bind kamil bàyyee ko daara ñu ko jànge amuñ woon ko téere yi mool yi amuñ woon amuñ fuñ copier amuñ dara amuñ dara kon loolu bu dee bind mooy tax mu sax fi liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rëy yooyu buñ ci doon wax buñ ci doon wax du du du jeex bu dee jànglu ko bu dee bindlu ko bu dee wormaal ko bu dee fonk ko sëñ bi bi wax sànq maanaam sëñ bi daw nangoo wéeru ci lal bu alxuraan nekk nen na am na bis boo xam ne dafa bind bis bind banque tànk ba ci yàgg tànk bi xaw ma lu toq mu koy tàllal bi mu ne sigget gis ne tànk tànk bi njëlim jëm ci kaamil la jëm da koo bojj ci permis ba muy nàcc da koo bojj bojj ci permis ngir jéggaloo ko tànkam bi tàlli wuti wuti wuti téere bi ku mas a waxit alxuraan la wax sëñ bi ñu doon wax taral ñu alxuraan sëñ Moussa Adama Gueye moom moom ku mas a wax nu mu defee téere bi bu dee téere aroot bu dee téere naxwu bu dee balaaxa bu dee mantiq bu dee usul bu dee lu mu doon danaan la téere sàngam waaye bu dee téere bi maarifa alxuraan lay wax mu ne ko nu mu defee téere bi waajuram ne ko moom de tubaarkàlla mokkal la ko boobu sëñ Moussa Adama Gueye di tuut tànk lool mu ne ko bismillah mu tar alif li nga tari li seere des jël ko teg ko ci kawam ku agsi mu ne la bis ni ki tey damaa am gan gu tedd bëgg ma ko terale daana wax ni ndaw lu mokkal alxuraan li ko suñu bésoon wax léegi man ahmadu mbàkke xamuma sikkam te bu ma ko kenn wax daana seen nit mu nekk ca tool ya di bay mu ne xanaa kee du ñu naa mu ne nekk ci naaj daana yónni nit mu ne bëri ko dalal da ngaa diis ko alxuraan nekk ci wóoroo dawal dawal kenn daana wax ne bu ma tëjoo ba ne kenn mënu maa gis na ngeen xam ne nituk alxuraan bokku ci ku alxuraan agsee na ngeen ma yëglu ma génn bu ma saa nekk ci xalawatoom yu yéeme yi nga xam daana kenn ko fa fekk ak lekk kenn du lu muy xamul lu muy lekk xamul lu muy naan ca ne kenn du ci moom daan batalee ne ku yor alxuraan bu àggsee na yéen ma ko teralal ba xolam sedd bu ma nee xaar ba daana wax ne yomal xiyaamat akbar fekk dana ku bañ ma dana woon nit ki boo bañee añ mu añ wàcc la jataay bu xorom la ndax la tàmbaloon jataay benn salum salum bu mu boo xam ne dafa ñëw sëñ bi ne ko ana waa mu ne ko mbàkke ña fa lekk ah, mu ne ko bu munta bàyyi lekk ngir sama lekk bay ma yàlla mag koo boo bañee nit ki añ wàcc la nan a ko mbàkke faa dal waaram mbàkke faa dal waaram ci toolam na nga dal ci sama waar ci sama waar mooy alxuraanul karim ku bañ ma añ wàcc la lu ma am ñu séddoo ko néew a bari na dal sama waar bu alxamdulillah ku mas a fonk bihi uwaali wa bihi uaadi yi nee na ku ma bëgg ci laa bëgg ku may bañ ci laa lay kon liggéey boo xam ne jéggi na dayoo ci ci ci li ñu doon tënk ci waxtaan wi bu ñu ñëwee ci wàllu wàllu xemmem loogi nit ñi xemmem loogi nit wax doy na sëkk yenn ci ay baytam yoo xam ne wane ne lu ma am ci alquran laa ko amee kitaabum bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi bëgg bañ dong nga fi nekk li nga bëgg di ko wut nee na lépp li ma bëgg di ko wut ci alxuraan laa ko amee raxma jooju da koo nakiraal léppay dugg ci biir raxma jooju da koo nakiraal maanaam léppay dugg ci biir mu ne lépp lu may ragal di ko moytu ci alxuraan laa koy laa koy moytoo kitaabuhu saana nii an kulli mafsadatin wa kaffa an il ada kama mahadara nii nee na téri moom ñoŋal ci lépp lu ma naqari an kulli mafsadatin lépp lu ma nar a yàqal alxuraan dox sama diggante moom wa kaffa an il ada lépp lu ma nar a lor kufiitu bihi aada wa danba wa shirka ca muqaddimatul amda maanaam dara lu ma lor du am accès ci man ca dara waralu ko li may li may baare mooy téere bii moo dox sama diggante diggante ak moom ilmi hmm? wa diini wa aadaati bihi saluhat bihi unabbihu ahlal asri min wasali sama xam-xam bu sell bii ngeen di yéem ci alxuraan ko sell la sama aada yu rafet yii ilmi wa diini sama diini ju rafet jii ci alxuraan ko sell la sama aada yu rafet yii ci alxuraan ko sell la kon nag ku nangoo yeewu bihi unabbihu ahlal asri min wasali yéen waa jamono ku ci nelaw sama yar bi ma naan la pëkk-pëkk du weesu téere bii di alxuraan karim kon lu ne lu ne wax na ko eh, qultu wa man yurid rahmani fal yuthbitan tadabbur alqurani ku bëgg ngërëmul yàlla ku bëgg ngërëmul yàlla na ngay jàng alquran alkarim wa man arada alqurba min mawlaahu fal yaqra alqurana la yansahu ku bëgg a jege borom bi subhanahu wa taala na ngay jàng alquran ca du ko fàtt ca du ko fàtt eh, kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim képp ku ne maa si jëwriñ ci toolub lislaam bii waroo xëy suba ba ngoon ci jàngu alquran karim loolu nag ku ne war na cee seet sa bopp fal yu dim la wax idaama da nga koy saxal lum na wala uh, addim tilawatan ala alkitaabi wala salaatan na al ahsaabi donte ñetti isib la nee na na nga ko saxal ñetti isib nga man donte na nga ko saxal waaye nag bul bul bul def bul jëllal bul bu la ab revue de presse rëcc nga koy naqarlu match de football ba rëcc la nga naqarlu ko nangam rëcc la nga naqarlu ko ca jàngagoo alxuraan ceegoo ko talibi suñu war def loolu kon nañu bàyyi xel ne ñun suñu delluwaay suñu masdar bi gën rëy moom mooy alxuraan karim koo ci liggéeyal nag téere bi moom ku ci liggéey liggéey nga lislaam bépp kon loolu liñ ciy wax li sëñ Thierno doon joxe misaal ci sëriñ Saliou radiyallahu anhu boo jëlee njabootu sëñ Tuubaa gépp loolu la seen mission weesu doon loolu seen mission weesu doon loolu sëñ bi am na bis boo xam ne bi ñuy jàng sëñ bi teraanga jéggi doy na dañoo ñëw ne tëll dañoo woolu rabita bi ñëw bi ñëwee lu yéeme xew na ca ndax dañoo ñëw mu daal dalal ñu fausé ni ñu tàmm ñu tas kaamil bi tàmm li ko jàng sëñ bésum sëñ Fallu sëñ bésum sëñ bi wongi ji mu daal ñu woolu ñu ñëw mu daal leen sama néegu biir bi laa leen dugal ba ngeen xam ne ëmm kan gu ma gën a fonk ci yéen keroog bañ fa duggee am na ministre bu nekkoon ci jamonoy président Abdoulaye Wade ba ko fa gars yi ma ne ba dugal ko fa sëñ bi da ko dafa daal tàng jër force na ko fii de moom sëñ daal rek laa fa soxla tey waaw mu génn teraanga jooju mu lu ci xew lu yéeme loo xam ne ku ne ci ñun nag war na koy bàyyi xel mooy dañuy dañoo jàng ba wax ba euh, xatma bi des si sëriñ Bassirou sëñ Fall ko bismillah sëñ bi dañoo bëggoon nga mu ne daa bëgg nga jàng ko jàng leen ko ñu ne ko ah jàng mu ne jox nañ ci liggéey jàng leen ko dal ne suñu bas jàng ko daal ne taxawal ba lañ cey jàng dama bëgg ngeen ngeen fasal ma ci njéggalu yàlla wala na daal di daal di muuroo sarbet bi xéewali tuuru day wax ne nag ñun maanaam bu dee da bëgg sëriñ Tuubaa bu dee da nga koo gëm loo ko def sëñ Saliou la gën a def boo koy jege moo la a jege moo la a gëm moo la gën a wóolu wax loolu yow yow mi bëgg na taagum nag jàpp ne sa affaire yëpp baax na sa diggante sëñ Tuubaa sa xel dal seytaane jekku na la nañ bàyyi xel ne mbokk yi seytaane li muy li muy liggéey ci ñun ci wet yooyu day day bari li ñuy waxtaanee sëñ Tuubaa ci kiimaan yi ci garaat yi ci yooyu dañu ciy naagaloo ba tax ñun duñu yëg kan lañ li war a yëg moom mooy kuy daw vitesse woowu ci yoonu yàlla nga ne yaa moom a ànd ba noppi ne da ngay tëddi nelaw am nga problème sëñ bi vitesse woowu muy daw xil yooyu muy daw ci yoonu yàlla képp ku ànd ak moom am nga problème lay ay ay alaama lay doon ay mandar na nga bëgg alquran na ko fonke sunna mii ni nga ko bëggee ni ko fonke moom bañ ne ba nadaafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu dara taxu ko fee nekk ba mu nim jeexal mooy leeral sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon da wax ni am murit wurtu nangu ñu naan diw ñoom ahlu sunna sëñ tubaay sunna sëñ tubaay alquran sunna mooy mooy mooy mooy alquran sunna wal yaalamanna kullu dakiyin wa barid anna alladi yuxaalifu alxaqa tarid walxaqu batul abdi bi tawxidi walfiqa an tasafu majidi muntahijan madhaba ahli sunna maa aljamaati fi tilka wa tilka aljunna mu ne fa ca des mu ne maal jamaati najaa min fitna kon loolu moom mooy ñun sëñ Tuubaa moom bu ñuy nangu kenn moom alxuraan ak sunna ko léppam dund bi loolu looloon kon nañu bàyyi xel ne kon waxtaan yu mel lu mat di jegeel la ndax bu day ba bu na bu ñuy wax sunna booy wax sunna da nga yaakaar ne buñ gisee buñ gisee sëñ bu deelu sikkim moom dañ naan dañ naan sikkim de moom borom kenn kenn moom ko sunna kenn mënut a matal sunna yi boo mënee def li ngay def boo ko mënul nag nga xam ne koy def ndax ci misaal boo ne boo ne si dullu sikkim sëñ Tuubaa ko moomoon danaan laxas sikkim bi sëñ Musaa Ka lu mu waxoon danaan muuru yor yetti kaala yay joor mala mala rawaan yaa ngi ko daa féete wàllu ndeyjoor bu muuraay gën a mel xat sikkim bana laas di saf laaru wurus moo ko jekk ay faas sikkim bana laas la wax di saf ab laar laaru wurus mbokk yi loolu dañuy bàyyi xel ne kon bu ñun buñ buñ buñ buñ nangu yenn yi wallahi kii kii nii kii nii buñ ci buñ ci taxawee di ko dund di ko waxtaane dara duñu góndi waaye suñu njaboot gi ne bu ñu leen bàyyee libéré leen ab kaas maanaam amul luy widd kaas bii da ba bëgg soppi suñ yooyu bañ fekk leen ci saagaanteeg waxante lu bon ak waxante lu ñaaw buñ ko nangu seen nga sëñ bi mbokk yi bu bu dee bu dee ku xëy boo jàngee sa alxuraan ba noppi waxtu woo am nga jox ko xaside sëriñ Tuubaa yi doo doo xam lu ñu wax sëñ bi ko naqar daanaka am nañ yoo xam ne moom nga wax sëñ bi sànq man fa sëñ bi laa ko wax sëñ Cheikh Omar maanaam man fii ne damaa fas yéene lépp loo xam ne wax ju ju mel noonu la jëm ci sëñ bi wala ci ñoom dama ko fa sulee ne déglu bu dee lu ñuy liir dama ko liir bu dee lu ñuy déglu dama ko déglu bu dee lu ñuy seetaan dama ko seetaan bu ko dégloo mu sama xol di ma naqari ci mënu ma ko du ko def waaw ko du ko def nañ fexe nag ba yar njaboot gi ci ci ci liñ ci liñ war a nekk ñu nekk ci bari na ci loo xam ne boobaa duñ am na am maa nag am maa nag euh, am tiit ci ñenn ñi loolu moom ak ak ak ndof la maanaam sëñ Tuubaa moom ni nga xamee ne noonu la noonu la Covid bii sëñ Mountakha ñeme ko défier adduna bépp taxaw ñu naan delta baa ngi màgg mi ngi màgg mi ngi màgg ñëpp taxaw mu woote journée xasida boo xam ne kenn mos a gis mbooloo mu toll noonu da mbooloo mu toll noonu mosuñu dajee doo ci jumaay Touba maanaam màggalu Touba sax mbooloo mu toll noonu mosuñu dajloo ci benn instant benn jamono ñu dajoo doo jumaa jumaa ji dañuy siyaara dellu ñuy siyaara dellu waaye dajoo doo ci mu tàllal loxo yàlla sëñ bi ñaan ñaan ñaar yi nga xam dañ ne woon ndox du bari du am dañ mbas mi dañ ne woon dañoo dem ba naan dañuy tëj Sénégal man Amérique la ma fekk maa ngi doon benn benn mbokk ko xam naa leen daan wax naan man ab sëñ daara laa saa bu ñu tëjee moom dana ma jaral jaar ci géej gi tolloon ci tiitaange même murid yu bare bare bare bare sax bi sëñ bi woote ñi ngi am dut nan ah sëñ bi moom sëñ bi lii ah woote bi rëy na da ko dégg ci ñu bari ci ñun mais nag am loo xam ne sëñ bi waxoon na ko yàlla xafaaya ma bi anil qalbi zahiratan